alhamdulillahi summa salatu wa salaamu ala rasulillahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq yal na yàlla boole baal fa tabaarakallahu ñu ngi dellusiwaat fii ci Morolan Daaru Alpha Thiombane ci télé bi ñu naan FMTV ñu fas yéene joxe ay bind rek baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di fàttali jaam ndax fàttali dina jëriñ fa tabarakallah ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di ziare sëriñ bu baax a baax yal na yàlla nangu barke yonente bi sallallahu alayhi wa euh, suñu émission passé ñu ngi doon waxtaan ci wàllu laab ndox mi euh, ni ñuy def yooyu yëpp waxtaan nañ ci émission passé kon émission tey bi li ñuy waxtaanee mooy wàllu jàpp ak julli ndax itam sa bo amé ndox mu set ba euh ndox mu lap nga euh, nga lap lo paré da ngay dug da ngay dug ci walu japp japp nak dafa am ay farata am ay sunna am ay ngeneel wa tabarakallahu ndax euh, nit ki bo la ba paré bo jappé japp bi farata yi farata Eh, juróom-ñaari farata la waaw juróom-ñaari farata la eh, yene eh, da ngay yene nga ni fas na japp nga nga nga solmu bo solmoo raxas sa ñaari loxo ba ci conc yi nga masa bop farata la xam nga nga masa boobu faral nga nga rax sa ñaari tànk ba ci doojeer yi yooyu yooyu farata la boo paree boo paree addalku raggu ak fawru gawantu yooyu ñooy farata yi maanaam doomu aadama li am solo ci moom mooy fépp foo nere rek booy jàpp fépp foo toll rek war nga mën xam ne fii yii farata la wala sunna la wala ngeneen la waaw Foto toll rek war nga ko nyapa xam ndax njapp njapp bu baxul sa julli du bax waaw kon buñu duggé ci walu farata bi farata yi ñoy kamay yëma lim sank moy farata yi légui bo njappé comme nonu farata yi ba pare gaawantu bi ak raggu bi nam ga bi moy par exemple ngay ngay ngay ngay ngay ngay soxlo ñu ngay wax say soxla door a raxas nga wax say soxla door nang mais boo jàppee noppil nga japp japp bu soti waaw moy gaawantu bi raggu bi boy japp da nga boy soti ndox mi na and ak ragga bi waaw ba mu set wecc nga dalti ba pa noppé ci japp japp ba pare nga dugg ci walu Eh, eh, julli ndax njàpp boo njàppee ba pare da ngay dem julli ndax julli dafa am solo trop trop trop waaw julli dafa am solo ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dane diggante eh, yé catholique ak julit julli moo dox seen diggante boo matale boo booy jullee yaa ngi ci biir bu fekkente ne nag doo julli nag duñ la tuddee jullit waaw ndax sunu borom bu demee ba ni fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahuuna yàlla dani fa waylun mbugal ñan lil musallina ñiy julli xam nga bu yàlla yemoon foofu rek musiba am dafa mel ni dañ dafa mel ni dañ ne yàlla ah ñan ngay waxal mu ne allazina gaa yi nga xamante ni saahuuna dañuy sàgg na an salaatihim seen julli maanaam yaa ngi julli waaye julli bi respecté ko boo jullee suba doo julli tisbaar boo jullee tisbaar doo julli timis walla itam nga toog ba mu neex la ñu ñu nodd nga war a jóg julli nga toog toog toog ba heure bu bu la neex nga ne naa jóg fay samay julli mais kenn lebalu la yàlla lebalu la julli julli dafa am dafa am moxtaar am dërër yu moxtaar bi mu ngi tàmbalee euh, par exemple tisbaar euh, une heure et demie fala moxtaaru tisbaar tàmbale une heure et ba deux heures trente muxtaaru tisbaar foofu la yem maanaam tey boo xamee boo xamee muxtaaru tisbaar ak euh, maanaam boo taxawee sa ker bi sa ker sa ker bi lay keral noonu boo taxawee naaj bu ko tàppee mu wàcc mu nekk sa digge tànk waxtu muxtaar bi muxtaar bi tàmbale na foofu léegi nag bu dawee sa sa ker bi bu dawee un mètre mu tàll ak sa jëmmu sa sa jëmmu rek muxtaaru tisbaar foofu la yem waaye muxtaar ak dërër yu bokkul dërër yu mën na dem ba fi e, waxtu tàkkusaan muxtaaru tàkkusaan tàmbalee foofu la dërër yu tisbaar yem fi muxtaaru fi fi fi muxtaaru tàkkusaan tàmbalee muxtaaru tàkkusaan fi mu tàmbalee dërër tisbaar foofu la yem ñu continuer kon bu ñu noddoo bu ñu noddee lépp loo jàpp bàyyi ko bàyyi lépp nga dem julli ji waaw nda julli inna salaat tanha anil fahsa i wan munkar julli day génn jikko ju bon day génn lépp lu bon ci yow julli da koy génn ci kaw nga teg julli ci ci yoon julli bi da koy jox ak kam nga teg ko ci yoon boo ñaanee yàlla mën ko nangu waaye julli bu fekkee tegoo ko ci yoon boo ñaanee yàlla du ko nangu xanaa xamoon ne dina julli ba pare ñu jël julli bi lëmas ko taf la ko ci sànne ko sànne la ko ci kat sa sa kanam ngir li danga da julli bi ndax julli dafa laaj préparation préparation yooyu rek bu mat bu matewul sa julli du baax foog préparation mate matale comme émission passée ni ni jiwaatee wàllu laab boo jógee ci laab nga teg ko ci yoon nga njàpp njàpp bu sell ah boo ci jógee nga nga nga julli te julli moo lay jëriñ fii moo lay jëriñ fa ñu jëm nit ki nekk yàlla dafa ñu ànd ci àdduna ànduñu àndiwuñu ci àdduna pour fox andi wuñu bindu bindul jam pour fo nga ne ci aduna sa yon newul ci julli sa new sa yon newul ci jamu yalla sa yon newul ci jang alquran julit bi warna moytu yoy bo tuddé sa bop julit rek yow ya nga ci ya nga ci mbir manam ya nga ci ya nga ci eh, li depp sunna yonante xam nga ki ki ne duma julit manam yéefar la yalla amul ak mom affaire ndax koku ay mbiram régler nañ ko ba mu côté bu bu ci karam yalla mu ko yàlla ñu ñu diggaale ko mais bo jëlé engagement nga ni julli la julit la rek da nga jël engagement bo xamanteni ni da nga wara a da nga wara respecter li yalla bëgg nga ne li bañ nga bayiko diine metul te julli it metul nit dina julli ba pare julli bi ñu ñu ko teuf ko ci kastaf taf ko ci karam lu waral lolu moy da nga sagna julli bi waaye bu fekkente ni jox nga julli bi àq li ci war yépp nga def ko julli bi danaan yàlla de jàmm bii ni ma fonkee ak ni ma terale yàlla nga ko terale noonu yàlla nga ko terale ci àdduna nga terale ko nga terale ko noonu àllaaxira kon am na solo nañu gën a fonk jaamu yàlla jaamu yàlla nañ ko fonk yàlla li mu bëgg nañ ci ne limu téré nañ ko bayyi aduna bi yàggut aduna yagul té nit ki lo gis ci aduna day jé té nit ki bo jamul yalla itam bañu gas buñu gasé ci suuf bañu duggal la fa wallahi di nga xamné jamu yalla mo jëk mo mujj ndax yalla dana nit dina Eh, manam eh, nit nit ak jinne wa maa xalaqtul wal insa illa liyabuduni yalla dafa ne ñaari ñaari ñaari ñaari mbindef yoyu la sant ñu jaamuma nit ak jinne kep ko xamantene ne jaamoo suñu borom buñ la gasee ba xoot dugal la ci biir di nga xamni ni di nga xamni leppay deug jaamu yalla mo la mëna a jëriñ foofu dara mënu la fi jëriñ lu dul la jaamu yalla nañu fonk jaamu yalla nañu gorlu ci ci mbiru suñu borom yi nit ki boy julli doo soxor nit ki boy julli doo wax nit lu bon nit ki boy julli sa xol day laab fa tabarakallahu li lañu amon pour andil len ko di julli di rek ndax fatale day jering, kon yal na yalla defal ñu jam defal ñu sutru defal ñu xewal ci barke yonent yalla muhammad sallallahu Alaihi wasallam ñu ngi ñu ngi wa fm FMTV yépp ñu ngi leen di bu baax ngi FM TV di ko ñaan yàlla fa mu bëgg àgg yàlla na fa àgg ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa